wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin wa ala alihi wa ashaabihi wa xadimihi wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi din mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñi ngi leen di nuyu di leen siyaaro di leen balu di leen ndokkeel di jiital ci nuyoo bi cheikh Mouhamadul Muntaxa di ñaan sunu borom mu yàggal ko fi te wéral ko di nuyu mboolem jullit yëpp it ak fu ñu mën a nekk ci àddina bi rawatina taalibey xaadim rasul ñi ngi nuyu mboolem téléspectateurs yi nga xam ne ñi ngi ñuy seetaan ci seen télévision CMT TV ak seen télévision Lampal FM tey jii nag ñu ñëwaat ci benn émission bu am solo boo xam ne ñu ngi koy tuddee al manbaul muridi mu dugg ci programme bu am solo bi nga xam ne CMT TV ñu ngi koy def waaye bii nag dafa bokk ci yi nga xam ne su ngeen yàggee topp euh, programme mu daayira Muxaddamatul Xidma rawatina commission culturelle bi muy laññatu saxaafa lu mat fukki at ak juróom ci ginnaaw euh, daanañ ànd ak émission bi di alman manbaul murid yi ànd ak rajo télévision Lamfal FM xam ngeen ne yàgg ngeen koo topp ci rajo bi euh, ñu ngi ciy fàttaliku bu baaxit sunu mbokk Serigne Cheikhouna Diatra rahmatullahi alayhi yàlla na ko yàlla dolli yërmande mu doonoon président commission culturelle bu daayira Muxaddamatul Xidma yàgg ko ànd ak yéen. ci biir programme bu bees bii nag ñu indiwaat émission boobu ngir fas ko yéene ànd ak Lamp Fall télévision ñu di ko tuddee ballukaayu murit yi dañ ci tànn ay waxtaan yi tomb yu jamono yitteel di ci dalal ay boroomi xam-xam yoo xam ne. dañuy indi ay siise yoo xam ne jamono dana laaj ñu waxtaan ci ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu indi ñu indi ko ay siise yoo xam ne jamono dana laaj ñu indi ko loolu saa su nekk dañ koy ànd ak yéen incha allah ci weer wu nekk muy almanbaul muridi xam ngeen ne nag concept bii ñu tollu tey jii euh, lu ay di jàmbat maanaa ñi ngi toll ci jamono yi euh, corona muy mbas mi. loolu moo tax ñu tànn benn borom xam-xam boo xam ne kenn ku nekk xam na ne xam-xamam màcc na ci wàllu jàngat mbir muy wàllu philosophe muy sëriñ Fadilou Bousso Assane di borom xam-xam di imam di jàngalekat di gëstukat di bindkat tamit euh, ñu fas yéene dalal ko ci mu waxtaanal ñu ci li nga xam ne mooy mbas mi ak yan bind lañ ci mën a ak yan jàngat lañ ci mën a jëlee euh, xam ngeen ne lu bari la. waaye danañu ci indil lu tolloog waxtu wi li nga xam ne moom la ñuy may jàpp naa ne nag euh, incha allah suñ ko bàyyee xel te déglu ko euh, danañu jariñ lool dana doon luy amal njariñ jullit yi dana doon luy amal njariñ taalibe yi kon duñ def lu dul njëkkante ak waxtu wi rek dalal jox sëriñ Fadilou Bousso Assane mu jublu ci waxtaan wi sëriñ Fallou bismillah. aouzu billahi mina shaytaani bismillahi rahmaani rahim. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu kon mbokk yi nga xam ñoo ngi topp émission bu am solo bi Manbahul Mouridi di am weeru jot te Lamp Fall TV di ko seq ak GMT TV muy Touba mooy seen bi nekk ci jumaay Touba ji di ko seq ak Lamp Fall FM Lamp Fall TV ñu koy amal weeru jot mu jëm ci jataay yoo xam ne nii xëy na daañu seet li nga xam yitteel na. jamono ci waxtu ñu waxtaan ci jëm cee génn xel ak xalaat émission boobu ci lañ dellusi tey tey nag thème bi ñu fës ci yéene waxtaane mu jëm ci mbas mi nga xam moo am ci àddina bi yëpp taxawaay biñ ci am ak jeexit yi nga xam ne nii jàpp nañ ne mën na koo bàyyi loolu mooy tomb waxtaan mbas mi nag ku nekk naa buñ ziare nuyu alxalifatul am ni murid Cheikh Mouhamadou Mountakha ñaanal ko mu yàgg fi loolu te wér te yàlla mot di rafet lu baax jéego yoo xam yëpp def na ko ci biir mbas mi amee léegi ci jëf ji ak ci wax ji ak ndigal yi ak jàppale gi ak conseil yëpp ñaan suñu borom yàggal ko fi te kàttanal ko ba lim yéene mu mën koo jëf ñaan tam suñu borom jële fi mbas mi jële ko ci àddina bépp waaye dële si jàmm ak salaam ci biir fépp foo xam ne doomu aadama mi ngi fi dund tey ni nu ko xamee nag mbas mi am na fi lu mat at boobaak léegi ñu ngi koy waxtaanee ci àddina bi muy ay diggante yu xat nag yoo xam ne dafay faral di am ci histoire nga xam ne léeg-léeg ni ñu koy jàngate dañuy jàngat ne mooy loo xam ne ni bu ñëwee la ko jiitu ak la ci topp mën naa am ay soppaxndiku yu baree bari yoo xam ne ni dana ci am xam ngeen ne sunu borom ni mu bindee àdduna léeg-léeg buy soppi kuy ñëw léeg-léegi mën na ko jaare ci lu mel ne mbas wala lu mel ne ab xeex wala fitna walla sax yeneen yu mel yoo xam bu ñëwee. soppi gu ma sëkk mooy am la jiitu woon ak la ci topp dafay wuute léeg ñu ngi tuddee ci arab alxatiatul épistémologie te mooy rupture épistémologique bi nga xam mooy faral di am léeg-léeg ci yu mel noonu boo xooloon tey ci lu gën a gàll jege euh, deuxième guerre mondiale wala boog ñaari guerre mondiale yëpp bi ñu jàllee àddina bi gis nga ni mu soppi ko la ko jiitu woon ak la ñëwaat soppiku lool ñaari pôle yu créé woon euh, di maanaam pôle Union soviétique ak Amérique ku nekk sëq am jël ci àdduna bi ñu séddoo àdduna bi loolu a guerre mondiale la tëddee noonu loolu la ko jiitu dafa soppi la ci topp muy xew-xew yu mel noonu ñaari boo amee dafay soppi jamono boo xoolee e, e, mbas yu baree bari bu ñëwee bu sopp bu weesoo lu baree bari dafay soppi ko mbas mi itam jàpp ne bokk na ci yi nga xam ne nii war naa mën a tax bu ñëwee la weesu woon ak la ca topp jàpp nañu dañ am wute lool lool lool te ñu ngi koy commencé seetlu ci doxalin yu baree bari te yaakaar naa bu ñu diggee ba ci biir waxtaan yi ba gis jeexit yi nga xam danañ gis ne soppiku yu baree bari mën na cee ñëw muy loo xam ne ni àddina bi xam na wéradi yu baree bari ba tàyyi waaye wéradi gi ni mu tëddee moom dafay mel ne ñu ngi koy door a seetlu ci li mu bàyyi xam nga ne mbas ak crise dañoo jege waaye mbas mi moo jur crise bi crise bi mu jur nag moo mooy moom la wuuteeg yeneen yi ci des ndax àddina bi gis seetloo guñ foo xam ne ni tëj nañ àddina bi lu ma nanga weer nangami weer yoo xam ne nii maanaam kenn demul kenn dikkul jaxasoo yi ñu wàññi ko maanaam génn sax nokki ngelaw lu set sax ñu mën la koo xañ xeeti jaamu yàlla yu bëree bëri na nga ko bëggoon defe dootoo ko defee noonu loolu di bees yoo xam dafa bees ci àddina bi te mbas mi indaale ko muy loo xam ne nit euh, tasaaroo gi mu tasaaroo ci àddina bi neewaa na mbas yu tasaaroo ci am dafa matale àddina bi te réew moo dem fekk ko fa te loolu tam ne waa na nga ko daan gis ci wéradi yu njëkk yi daanañ ko xam ci benn continent wala ñoo xam ko ci benn ay nangam ci ay réew waaye loo xam dafa matale adduna bi loolu fés na ci biir mbas mi kon bokk ci melokaan xam ne ni mbas mi indi na ko muy loo xam ne ni kon gannaaw indi na doxalin yu mel noonu nag laaj nañu jàngat ko ndax jàpp nañ ne crise bu manti doon bu amee taxawaay bi nga xam moom la ci nit ñi war a am mën nañ koo tënk ci ay taxawaay yu bëree bëri waaye mën nañ caa tudd nu ñuy fexee ba kiris boobu ñu saafara ko ba mu jege fi waaye itam nu ñuy fexee ba bu am ba dootu am waaye itam nu ñuy fexee ba jeexeet yi nga xam moom lay bàyyi nu muy gën a wayefe loolu mooy ñett taxawaay yi nga xam moom la ñu am ci jafe-jafe bi nekk saa yu amee mooy ni ñu fexee ba jafe-jafe bi dootu am kon ni ñu fexee ba mbas mu mel nii dootu am ci àdduna bi wala boog bu dee am dootu àgg fi waaye itam nu ñuy fexee ba génn ci jamono yi ñu nii waaye dinañu fexe ba ci génnee jeexit yi muy bàyyi nu gën koo mën a woyofal loolu defe naa mooy waaye biñ ci war am kon bi njëkk mooy nu ñuy fexee ba dootu fi am mooy jéego yi nga xam ne nii moom la ñuy def jamono yi xëy na lu mel ne vaccination yi ñuy def ak ak yeneen yi nga xam ni matukaay yi nga xam ñu ngi koy jël ak yeneen yi nga xam gëstu gëstu yi nga xam borom xam ñu ngi ko ci def yëpp xay na bu bu dajee mën naa am bu ñu jëlee matukaay yooyu mbas mel ni dootu fi am loolu mooy bi jiitu nu ñuy fexe ba génn ci it mooy nii ñuy def nii maanaam ñi tuddee ay matukaay yi nga xam moom la ñuy euh, te ñu koy saytu ko dénkaane kilifa yi di ko dénkaane loolu mooy fexe ba mën cee génn mu des nag noonu buñ ci génnee ba noppi nag jeexit yi nga xam moom lay bàyyi nag naka la ñuy fexe ba dootu am loolu mooy tomb bi nga xam ne ni xëy na waxtaan wi ci lay gën a jëm tey buñ dee xool nag jeexit yi nga xam ne ni moom la mbas mi jur daanaka fànn boo xool da gis ne bàyyi na fay jeexit. am na jeexit yoo xam dafay jëm ci wàllu pas-pas yi wàllu diine yi am jeexit yoo xam dafay jëm ci wàllu politique bi maanaam ni ñuy saytoo réew am jeexit yoo xam jëm ci wàllu koom am jeexit yoo xam jëm ci dundinu askan wi kon muy jeexit yu baree bari yoo xam ne nii buñ xamee yooyu bu nepp nag xool ba xam ñun nag ban taxawaay lañ ci war manam ba jeexit yooyu gën a woyof wala boog niñ cee mën nuñ koy mën a woyofale buñ xoolee jeexit biñ njëkk a tuddi mooy ci wàllu diine yi waxoon nañ ko léegi njëlbeen waxtaan wi mooy ne mbas bi mu ñëwee yu daan am ci diine yu bëree bëri ak soppax nag gu mag da ca dugg mu yoo xam ne ñu jàppoon nañ ne dootu amaat mooy ci misaal tey ñu ne la atum lëmm moo xam dañ naan la kenn du aji aj gu ñëw ñu kenn dootu aji jumaa yi ñu daan julli ajjuma ñu tëj ko diir julli juróom yi ñu daan def di ko defee niñ niñ ko suñu lislaam sante ñu ne la ci misaal jàkka ji dañ koy limité distance yi nangam dañu jël distance yi ak yooyu yëpp day jeexal yoo xam bàyyi na ko ci diine ji loolu nag di loo xam ne nii moom itam xëy na géej daana am waaye géej na ko gis lu mel noonu mu am ci àdduna bi kon jeexit yu mag a mag loo xam ne bàyyi na ko ci diine ji moom ñu war a ba xam buñ génnee ci mbas mi ban départ lañ war a amaat ba pas-pas yi gën a dëgëraat ba pas-pas itam gën a ñu mën gën a pratiquer diine ji ak yan matukaay lañ ci war a jël loolu defe naa ne wees na ci bàyyi xel kon bu ñu xoolee wàllu diine ji mbas mi indi na ci ay jeexeet yu baree bari ci niñ ko daan dundee te mënatuñ koo dundee noonu loolu sababoon na ci mbas mi muy loo xam ne nit bokk na ci xëy na li gën a jaaxal nit ñi li gën a metti ci nit ñi itam ndax ku ne xam na pas-pas ni mu dëgëri ci nit ngëm ni mu dëgëri ci nit ku nekk ni ngay bëgg a pratiquer sa diine ni bëgg pratiquer sa pas-pas bu ñu nee ba xañ la ko yëg bi ñu ci am dafay metti lool moo tax it muy jur yenn yi nga xam ne dana ko jur ci yenn nit ñi kon pas maanaam jeexit yooyu ci wàllu diine ji mën nañ koo tënk ci fu mel noonu am na jeexit yoo xam da koy jur ci wàllum koom-koom wàllum koom yi ku nekk xam na ne bi mu ñëwee ñu tëj koom-koom mu nekk moom yëngutu ko yor bu ñu ba lépp dal nag dafay mel ne kon koom mi noonu dootu dox bi dafay wàññi loolu tam fës na ci mbas mi mooy ñu baree bari ñu doon liggéey seen liggéey doxatul ndax maanaam yëngutu amatul li doon maanaam maanaam comme maanaam déplacement yi boog wala boog transport bi léegi na mu waroon doxe doxeetul noonu te ku ne xam na transport relation bi mu ak akum koom réew yu baree bari gis nañ ne seen liñ jàppoon ne dañ yokk giñ jàppoon dañ ko am gis nañu wàññiku na bu baax a baax a baax ci misaal tey boo ko réew moo xam dafa jàppoon dana am 6 pour cent wala 7 pour cent ci taux de croissance am ñu dem ba gis ne xëy na moom 11 pour cent yi sax mën naa am du ko am wala bu ko amee ci la yem loolu ñu gis ne jeexit la joo xam ngi tukkee ci mbas mi bari ñu doon liggéey ñoo xam tam seen liggéey jaar na ci yàqu ndax xam nga buñ tëjee dematoo dikkatoo ñu baree bari seen liggéey jaar ci yàqu ñu baree bari tam capital bi ñu doon liggéeyee mën na cee jaare yàqu ndax bu fekkee dañoo tëj léegi da ngay gis ne yow la nga dencoon doon ci liggéey te mënoo ñàkk bañ ñu dund loolu ngay fere dund bu ko defee boo bu jàllee dootoo am capital boo déparé loolu itam jeexit la ci wàllu koom moo xam ne nii mbas mi ko indi muy loo xam ne itam defe naa ne laaj nañu jàngat ko bu baax a baax a baax ba nuñ ci war a mën a génne ndax defe naa ne am na yëngatu yu bëree bëri yooyu xam ne mu ngi xew ci àdduna bi lu mel noonu moo koy waral mooy nit ñi dañoo dem ba tëj gi metti na am am bi wàññeeku lool ñok ñàkk gi gën di yokku yu baree ba di ci sababoo loolu tam tax ñu baree ba def yëngatu yoo xam ne nii ngir leen mën a génn ci loolu lay doon loolu tam defe naa ne jeexit la joo xam war na ko jàngat xool yan jota yan yan jéego la ñuy mën a am ba génn ci ba mën a jubbanti jeexit yooyu nga xam ne nii mbas mi bàyyi na ko am na jeexit joo xam dafay ñëw ci wàllum politique maanaam ni ñuy saytoo réew yi xam ngeen ne dafay situation boo xam ne nii dafa laal réew yu baree bari te gouvernement yu bëree bari war cee am taxawaay te mën naa am taxawaay yi ñu waram dëgg-dëgg population bi duñ ko gis nañ ko war a gisee loolu dafa indi ak féewaloo ko ci mbas mi mu fës ci lool lool lool ba tax yëngatu yu politique yu bëree bari itam di ci xew waaye itam daañ gis ne échéance maanaam yi ñu waroon am nga xam ne date yi jàppoon te war caa def yu bëree bëri yooyu dafay soppiku ndax mbas mi élection yi waroon am ñu ne dañ koy àndal wala yu mel noonu da ciy bari moom itam dañuy gis ne kon dafay indi jeexit ci wàllum politique dana taxit ba ku nekk sa programme bi nga tegoon nga xam nga waroon a dérouler sa mandat ni nga ko bëggoon a doxale dootoo ko mën ndax xëy na mbas mi dana dox sa digganteeg man man yi nga waroon am li nga waroon am ngir mën a doxal sa programme boobee boo ko amul programme du mën a dox bu ko defee ñu nga jiiti ñoom it dañu daal jàpp ne la la waroon defoo ko bu ko defee ñoom it réeru da daal di mën a jut seen diggante loolu itam gis nañ ko ci mbas mi mu tasaaroo lool lool lool lool muy manifestation yu bari yoo xam ne am ci réew yu bari nag am na ci Sénégal am na ci réew yu bari bari yoo xam dafay am te li koy waral mooy nit ñi dañoo gis ne seeni état wala seeni gouvernement na ñeen waroon taxawoo ci biir mbas mi dafa des loolu mën naa yëngal yu bëree bëri ci réew yi loolu tam jeexit la joo xam ne ni defe naa ne ñu yëngu ci fànn googu war nañ ko jàngat bu baax a baax xool moom it nuñ ci taxawaay buñ ci war a manam pour man cee génn am jeexit yoo xam da koy def ci wàllum social bi xam ngeen ne social bu ñu ko wax yëpp mooy relation relation yi nit ñi seq dem lente bi ak dikk bi maanaam ku nekk di mën a seeti seet morom na nga ko bëgg bu xew amee ñu mën a dajaloo def xew ak yooyu yooyu yëpp bu ñu ko xoolee dañuy gis ni moom it mbas mi daf koo wàññi bu baax a baax a baax ba nit ñi niñ daan jaxasoo léegi jaxasoo bi demee demeetul na mu war a demeen wala doog demeetul na mu daan demeen moom it mu bàyyi ay ay ay ay ay maanaam ay yëngu-yëngu yoo xam tam dana tax nit ñi buñ gëjee gisee um-, kumpante gi ak yu mel noonu dana jur ay safaan ci biir relation yi nga xam moom la ñu doon sëq ba ci géew boo xoolee xew yi ñu daan def yooyu yëpp dañ koo wàññi mënatuñ koo def ndaje yi daan def mënatut am yooyu yëpp di ay yoo xam ne dafay feeñ ci dundinu askanu ci relation sociale yooyu itam dafay feeñ ci biir mbas mi kon yooyu yëpp ñu nekk ay jeexit la yoo xam bu ci nekk waris na cee mën a gën a taxaw seetlu xoolaat gën koo jàngataat ba xam ban taxawaay lañ ci war a am ba mu gën a mën a woyof ci nit ñi ba nuñ ciy génn loolu na kon mooy mooy li nga xam mooy jeexit yi nga xam ne ni bëggoon nañ koo tudd mu jógee ci mbas te mbas mi di ko fi bàyyi wala boog wér nga xam moom ci lañ nekk di ko fi bàyyi muy loo xam ne ni xëy na kon àddina bépp war nañoo lënkaloo maasalo mu feeñal lu baree bari tam ci maanaam rëq-rëq yi nga xam ne am na ci doxin àddina bi ci maanaam diggante ñi woomal ak ñi néewal nga gis maanaam ni mu ci feeñe ba ci vaccin yi nga gis nii nga gis dafa feeñal fésal bu baax a baax maanaam maanaam wuute gi am ci diggante ni ñu séddalee koomu adduna bi daf cee feeñ am na pays yoo xam tey li ñu war a vacciné wu daanaka jënd nañ ko pare wala boog lu jëpp jënd nañ ko am pays yoo xam mënaguñoo jënd am ñoo xam dañ leen di may te loolu lépp adduna war nekk benn loolu tam defe naa ne ci ñu war a gën a xoolaat ci doxalin askan wi ci ci adduna bi ci la bokk yooyu yëpp na kon bu ñu ko xoolee dañuy gis ne kon mbas mi mën naa jur yu bëree bëri kon war nañoo mën a jàppit ne bu jàllee ni dox yëf yi doon doxee gis nañu lu bëree bëri dana ci war a sopp jóge na soppi ko loolu seetlu nañ ko ci biir mbas mi ak li nga xam ne nii mën na koo jur kon muy wéradi goo xam ne nii euh, gisaguñ ko ci àdduna bi wala boog histoire net léegi ko ci àdduna bi goo xam ne jur na lim jur ci ay jafe-jafe waaye itam mel na melokaan yu mel te mii loo xam ne nit xamaguñ ba xam kañ la fiy jógee yaakaar naa ne borom gëstu yi ñu gëstu ay kenn mënu ko laa wax ne la def sàngam la fiy jóge am na sax ñenn ñu commencé xalaat ne ndax nekkul loo xam dafay nar a dëkk comme ni fi yeneen wér di dëkke nga xam ne mën naa am dootu fi jóge yëpp di yoo xam ni kon dañ cee a xool kon loolu mooy li nga xam ne nii jàpp nañ ne juddoo na ci mbas mi ak jeexit yi nga xam ne nii juddoo na ci bu ci nekk nag laaj ñu def ci ay toog ci ay jàngat waxtaan ci ndax xam ngeen am na réew yoo xam ne nii bi mbas bi duggee rek ñoom dañoo daal def seeni i jàngat ñoom xam nañu mi ngi fi kon léegi nag bu weesoo ñoom lañuy xool ban jataay ban ban ban taxawaay lañu war a amaat ngir ñu mën a jógaat loolu nag defe naa ne bu ñu ko doon xool dañuy wax ne mu ngi mel ne ku toog jataay bu yàgg rek boo toogee jotaay bu yàgg booy jóg il faut que force bu mag ngay ngay ngay da nga yokk sa force ngir mën a jóg taxaw loolu mooy mbir mu nekk bu taxawee départ bi dafay jafe mi ngi mel ne oto boo ko gaaree woon boo ko gaaree diir bis boo ko bëggee dawalaat mën naa am rëq-rëq yu bare ba da nga ko ci fekk wala boog na nga bëgg mu gaawee mën naa bañ a gaawee noonu askan wi itam noonu rek lay demee yu baree bari bu taxawee buy départ dafay laajaat départ bu bees dafay laajaat force bu bees dafay laajaat yitte ju bees yoo xam mooy tax départ bi mën a kii. buñ ci jëloon lu mel ni diine ji fi ne nii gis nañu événement yoo xam ne yu bëree bëri diine ji da am te mbas mi bi mu ñëwee yëpp ñu aj ko nga xam ne amatul bu ci nekk fi nekk nii buñ àggee ci war koo yëngalaat dafay laajaat waajtaay wu bees laajaat yeesalaat pas-pas yi ba nit ñi gën a mën a yëngatuwaat lu mel ne tey ci misaal màggal goo xam da nga def at mu nekk nga def ko nga toog ñaaraat yoo xam defoo ko yi tegaloo yoo xam defoo ko bis boo demee ba koy lancé waat dafay laajaat beneen yitte ju bees yoo xam da nga ko ci def ngir mu mën a amaat doxin nga xam moom la daan dox loolu lu mel ni misaal rek la si kon wàllum diine ji lu mel ni wàllum yi nga xam dañ ko aj aju màkk nga xam dañ ko aj yëpp fi ne buñ koy demee ba ubbiwaat ko boor caa demaat dafay laajaat yitte ju bees ndax xam ngeen nit moom lu mu tàmm def lu nekk ba tàmm ko def bu ci am jafe-jafe waaye nag bu toogee diir def ko rek mën naa am yu bare bare soppiku ci xelam loolu kon dafay laajaat yeesalaat pas-pas yi yeesalaat yéen yi yeesalaat tam mm, doole force yi yi ba jógaat bees mën a am ci fànn googu kon ñi yëngatu ci wàllu diine itam defe naa ne laaj laaj na léegi ñu tàmbalee waxtaan ak nit ñi léegi xamal leen mbas mi ak ni bu jeexee ne nag diine ji moom fi la nekk du fi jóg xëy nag léeg-léeg ay gàllankoor dana ñëw am yoo xam ne ni ruxsa yoo xam ne diine daf la koy may nga mën koo jëfandikoo waaye bu jàllee nag ñu delluwaat ci la ñëwoon loolu daf ci am ci wàllum koom miit gis nañ ne ci misaal tey laajaat na xëy na yooyu ñi ko yor ñu ngi ciy def ay yëngutu di teg ay programme yoo xam ne nii dañ koy tuddee programme yoo xam ne dafay jubbantiwaat économie bi jubbantiwaat koom mi tegaat ko ci yoon xettaliwaat suqaliwaat koom-koom mi loolu xëy nañ ciy def jéego moom it mu laaj jéego yu mag a mag yoo xam ne war na ci am tey ki nga xam ne doon liggéey amoon capital di ci liggéey ñu tëj buñ tëjee capital bu dundee na ko mu jeex moom fi ne buy yëf yi jeexee ba mu war a jógaat laajaat beneen capital boo xam ne moom lay am loolu defe naa ne beneen liggéey bu bees la boo xam moom itam il faut que ñu jógaat ci kon yooyu tam yëngutu yu bëree bëri yu taxawoon kon buy jógaat il faut que mu am beneen maanaam yeneen yitte yu bees joo xam ne nii dañ ko ciy def ci wàllum ni ma waxoon ci wàllu yëngu-yëngu politique itam gis nga ko ni ñuy saytoo réew itam moom it dafay laajaat ñu defaat ci yeneen effort yu bees ndax bu fekkee da ngaa defoon élection yu maanaam jataay yu maanaam wala bokk xeexoo yu bari yu waroon am ci wàllum politique ñu ajandi ndax mbas mi moom itam da ngay gis ne bu ñu départaatee lu baree bari mooy ñëwandoo ci suñu kanam moom ñu war a xool nag naka la nii mën a fexee ba loola surxu surxu du ci am waaye nañ koy lijjantee ba na mu war a doxee mu doxee noonu loolu itam defe naa ne beneen taxawaay la mu des nag relation sociale yi nga xam moom lañu sëq moom itam nu ñuy fexe ba dekkalaat ko ba nit ñi mën a dundaat ci jaxasoo gañ daan jaxasoo loolu lépp kon ay jéegalu yoo xam ne nii jàpp nañ ne bu mbas mi jàllee war na ci indi xalaat ak i gisin yoo xam dana tax ñu mën a amaat départ bu bees ci jamono jooju kon yooyu daal yenn la ci yi nga xam ne nii euh, xalaat nañ ko ci jataay bu gàtt bi muy tomb yu yaatu yoo xam bu ci nekk waris na cee mën a def ay jàngat yu baree bari boo jëloon wàllum koom mi rek ak li ci mbas mi def mu ci jur ci ay gàllankoor ak yan stratégie la war a mën a teg pour mën a jógaat loolu rek defe naan jotaay bu mat sëkk jotaay boppam lay doon boo ko jëlee naka noonu ci diine ji boo ko jëlee ci wàllum politique boo ko jëlee ci wàllum eh, social bi boo ci jël rek war naa mën a nekk jataay bu mag boo xam dañ ci ay gëstukat dañ ci bokk ci xalaat ba teg. stratégie boo xam ne ni dañ mën a génne ci jafe-jafe yi te buñ ci génnee jeexee di ci juddoo yëpp dana gën a mën a woyof ci nit ñi loolu daal mooy li nga xam ne nii moom lañ bëggoon a tënk jataay bi ci tënk bu gàtt gàtt euh, dellu nag ñaanaat sunu borom subhaanahu wa taala mi nga xam ne nii jullit bu nekkit war a bàyyi xel ci ne ñaan ci jumtukaay yi la bokk ci ngànnaay yi la bokk moo tax euh, daañ wax sax nañ xeex mbas mi dëgg la waris na ko waris naa mën a jàmmaarloog moom waaye nañuy bàyyi xel ci ne euh, ñaan gi ci la bokk mooy ni ko sëñ bi waxee woon rek ne mbindaafoon la moo xam ne suñu borom moo ko yebal mu am lu mu war a liggéey kon nag defe naa ne mu ñu mën a fàtte ne yàlla moom moo ko fi indi xëy na buñ ko dëkkee suñu loxo ñaan koot ñu mën a jàppale ba jëlee ko fi te du ko delloo siwaat kon xëy na jël matukaay yi mënta ñàkk ndax loolu moo moo moom la yàlla digle waaye ñu bañ fàtte ñaan moo tax dañ ñaan ci barke barab bii ñu nekk ñaan ci barke weeru saxbaan bi ñu nekk waaye ñaan ci barke ramadaan bi nga xam mooy jublu si yàlla may ñu balaa weeru koor way ñëw eh, yëf yi gën a jàppandi xéewal yi gën a mën a at waaye itam wér gi gën a mën a yokk waaye itam diine ci gën a mën a dundaat bañ mën a dundal weeru koor wi ci kem dañ ko daan dundale wala nu gën a kawe noonu yàlla mën na ko ma zalika alallaahi bi aziz kon ñoo ngi delluy sant bu baax a baax ñi nga xam ne nii ñooy tuxal jataay bu mel nii di ko tasaare di jégglu nag bokk yi baax a baax wa axiru daxwaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf Cheikh Mouhamadoul Fadilou Bousso Assane ci waxtaan wu am solo bi nga xam ne indi nga ko ñu mën koo tënk ci ñetti tomb muy indil nga ñu lii di mbas mi yan bind lañ ci mën a jëlee ak yan jàngat waaye nga indi ci ñetti aspect nag yu am solo bi ci njëkk mooy ci wàllu diine bi ci njëkk mooy ci wàllu koom bi ci njëkk mooy ci wàllu ak beneen boo xam ne ci wàllu social muy diine ak économie ak social benn bu ci nekk nga indi ci jàngat yu am solo jiital ci wàllu diine xam nga ne bi nga xamee ne mbas mi tàmbali na laal na àddina bépp ba dem sax bay laal xew-xewi diine yi rawatina sax jàkka yi ba euh, am na ci ay jàkka yoo xam ne sax demoon nañ ba leen waaye am ci jàkka yoo xam ne sensé woon nañ méthode ngir wàññi dajaloo bi loolu tamit lu mat a jàngat la ngir euh, bind yu ñu ci mën a jëlee bunt la boo xam ne ubbi na ko euh, ni ki doon tamit ci wàllu économie nga xam ne laal na réew yu bari ba ci wàllu politique nga xam ne am na ay nguur yoo xam ne sax dem nañ bay tëj nit ñi xañ leen ay droit yu bëree bëri ba nga xam ne tax na sax ay manifestation am ci réew yu nekk ba ci suñu réew mii euh, ba ci réew yu bëri loola kon day dem ba nga xam ne laal na sax wàllu politique ci nit koo xam ne am na ay programme yu mu tegoon pour wàllu développement ci ci jëmmal ko ci réewam mbas mi tax na ba mu ñëw ba gàllankoor yi rawatina li nga wax sax ne ñàkk équilibré gi nga xam ne am na ci wàllu réew yi ni ñàkk a tolloo ci wàllu koom nga xam ne gis nga ne am na ñoo xam ne biñ nee vaccin yi ñëw na dañoo am doole yi mën a jékki-jékki rek jëndandoo luy daj seen population bépp am ñoo xam ne tuuti la ñu mën a jënd ba ci am ñoo xam ne sax dañ leen di may tax na àddina bi war cee jàngat ci mbir moo xam ne tey réew mu mu dugg day jàll ci maneen kon équilibré war naa ñëw ci côté boobu boobu lu mel nii bu ñëwee ñu man cee yamoo ba man koo saafara ci lu gaaw kon loolu euh, ñàkk gi ñàkk yamoo ci wàllu économie ak réew yi ni war nañ cee indi jàngat beneen bi tamit ci wàllu social gannaaw maanaam beneen tomb bi nga indi ci wàllu économie surtout ni ñëwee ci wàllu politique économiquement tey boo dee xool dafay mel ne kon réew mu nekk war na xool nu muy jariñoo ci biir réewam maanaate te wàññi jëggaan yi ndax su fekkee demoon na ba nga xam ne frontière yëpp tëj na kenn mënut a dem fenn li ngay mën a jariñoo rek mooy li nga li nga li nga li nga liggéey ci sa biir réew loolu tamit bunt la boo xam ne Cheikh Amadou Fadal ubbi na ko ci wàllu social surtout kon réew mu nekk war na xool yan palant lay teg yoo xam ne néew ji doole yi su mbir xewee dana leen mën a gaaw a dimbale ndimbal lu gaaw loo xam ne day àgg ci ñoom bañ yëg ko ci saasa te loolu kenn ku nekk xam na ni jeexit jeexital na. kon suñ doon tënk Cheikh Abdoul Fadal tomb yi nga xam ne indi na ko dafa mel ne niñ ko waxee léegi waxtaanu jàngat la woo xam ne dafay ubbi ay porte ni ma gisee waxtaan wi ak ni ma ko jàngate mooy bunt bu nekk moo xam ci wàllu diine waxtaan wu yaatu mën na cee ñëw ci wàllu politique. waxtaan wu yaatu mën na cee ñëw ci wàllu économique waxtaan wu yaatu mën na cee ñëw ba ci wàllu social loolu lépp mën na doon loo xam ne mën na doon ay waxtaani boppam yoo xam ne lenn lekk mën nañ cee indi ay bind sagam nag moom euh, niñ ko xamee philosophe la dafay ubbi day cax rek kon boroom xam-xam yi ay gëstoongoog yoo xam ne mën nañ koo indi bu baax a baax ngir nit ñi mën cee jariñu kon ñi ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm di ñaan sunu borom mu euh, gën a ubbi sa xam-xam euh, gën a yaatal sa dënn rawatina ànd gi nga xam ne yaa ngi koy ànd ak ñun ci liggéey bi saa su nekk kon mbokk yi nga xam ne yéenay seetaan seen seen GMT TV di seetaan télévision Lamfal FM euh, émission bi nga xam ne mooy almanbaul muridi nii lañu leen ko fas yéene di indil incha allah weer wu nekk GMT TV mi ngi koy indi ci la 20 bu nekk ci weer wu nekk di ko rediffuser ci la 27 bu nekk euh, incha allah di ko ànd ak euh, Lamp Fall télévision xam naa ne. Eh, ñoom it seen programme danañ leen leeral yan bis lay jàll. Eh, su ko defee kon eh, niñ ko waxee rek maanaam waxtaan la woo xam ne weer wu nekk dana am ci di indi benn borom xam-xam boo xam ne lu méngoo ak actualité yi weer woowa. danañ ci indi benn borom xam-xam mu jàngat wala sax loo xam ne tomb la boo xam ne gis nañ ne jamono laaj nañu dalal ci benn borom xam-xam mu waxtaane ci indi ci ay bind yoo xam ne askan wi danañ ko mën a jariñoo muy ay thèmes d'actualité ci fànn bu nekk nag incha allah kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiq ak taysir asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh wal tudxilil musliha fi yadi wa fi داري وثبته بالهادي الوفي